ku nekk ci ñu yëg na ne bi ñu dund bés yu kawe la bés yu màgg la bés yi dekkal yaakaar la bés yi am gëm-gëm ci yàlla la bés yu óolu yàlla la <coughs> bés yu feeñal sa aju sa waay ci yàlla mel gàmmu ñëw na ni ñëpp gàmmu gi weesuut seen programme yëpp ko gàmmu loolu yëpp ñu ngi ko def mooy bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu yal na yàlla boole yabootu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci àllaxira yal nañu yàlla dëgër yal nañu yàlla xam yal nañu yàlla am am yal nañu yàlla dolli yeew xam bu baax lépp loo xam ne ad pour tabax pour tabax sa réew ci xam-xam ci am am ci sente loolu lépp yal na ko yàlla may Sénégal yal na ko yàlla may say ko may mboolem réew yi nga xam ne daje te ñoom ñi kenn ku soxla nga loolu soxla nga moos sa réew am jàmm soxla nga moos sa réew ne moo xam ne réew bu la loolu yëpp ñi ñu ji yi ñu ciy jéem waaye du tere ñun populaire war nañoo ànd ak suñ gouvernement dimbal jàppale ko loolu bëggal si réewam ñu ñu am ko jàmm ñu am ko ci ko defee loolu yëpp dinañu mën a dimbale néew ñu gis yoon wi nga xam ne ci lañu war a jaar jëm ca kanam te doo ñu dellu na mu ko te loolu mun na am réew bokk nañ ci réew yi gën a réew yi ay yi jëm kanam te na yàlla dina ko may ci xale yi la koy jaarale bon nag xale bu na boppam pour ne yaa may dénk ak responsabilité ay ak ak xam yi di màgg ci xew Sénégal ëllëg yëpp ci seen loxo rek lay jaar président yi yéen yi nekk gouverneur yi yéen nekk yi yëpp yéen bon nag loolu ak si war ngeen seen bopp ci ci ci dogu war ngeen seen ko war ngeen seen bopp ci gëm gëm préparé ci xam ne gëm ngeen ko ngeen la nga am ci bu baax ndax nit te tabax civilisation bu mag bu yëm kaw te tabaxu ko ci kaw gëm yàlla tabaxu ko ci kaw diine su fekkoon ne loolu am ni ko doon ba léegi union soviétique na fi waaye bi mu tabaxee boppam ne dafay tabax boppam ci gannaaw yàlla yàlla itam seetaan ko rek mu dem ba mabal boppam Union soviétique kenn déggatu ko léegi ci àddina bi léegi jeex na parce que dafa tabaxoon boppam ci loo xam ne du dëgg tabax tabax ne da ngay tabax àddina bi xam ne moomu ko àddina bi da nga ko fee fekk euh, ki fi ki ko ko may ki la ki la defal neen nii laa bëgg nga nekkee fi nga ne ko toppal fële man gëwuma la sax nekkoo fi danaa tabax te sa yoon nekku ci voilà moo tax doo tabax dara Union soviétique jeex na te yeneen force yi mel ni moom tabaxu woon dañuy génne yàlla ci seen tabax ñoom ñëpp seen tabax yi daanu na lislaam ak ñàkk ñàkk doole ci jamono yi ñu toll te moom rek la àddina bi yëpp te ne moom mu wax tabax boo xam ne dafa nekk njëriñ ci ad doomu aadama fii ci àddina bi dafay nekk njëriñ pour doomu aadama fële ci àllaaxira ndax lépp loo xam ne nit soxla na ko politicien soxla na ko euh, euh, euh, philosophe soxla na ko penseur soxla na ko yëpp su amul jàmm mënu ko am te jàmm nag ñun ñoo ko mën a may suñu bopp jàmm ñoo ko mën a utal suñu bopp jàmm mooy kenn ku nekk rek yëg ne Sénégal gi responsable la boo xam ne yàlla nga ko takk ci sama baat bon nag war naa li ma yàlla takkal war naa koo sàmm ba nga xam ne fa mu bëgg Sénégal àgg dina fa àgg dimbalante ak suñuy autorité parce que dimbale dimbalante ak sa autorité loolu loolu loolu mooy mooy mooy nit ku civilisé parce que sa autorité nga ne da ngay taxaw ni la woon ko gannaaw loolu moom di xëccoog moom loolu da ngay tardeel sa bopp rek waxuma ne bu bu bu opposition ñàkk waxuma loolu opposition na fi nekk parce que ci ñiy jàngale ci la bokk itam naka la ñuy àndee ci dëgg waaye naka la ñuy tàggoo itam ci kaw dëgg fekk lu baax rek lañ bëgg opposition Sénégal la bëgg ki nekk ci pouvoir itam Sénégal la bëgg ñun population bi itam Sénégal lañ bëgg bon nag war nañoo bëgg Sénégal ci kaw mbooleem loo xam ne daf ñuy baare pour ñu àgg ci liñ bëgg a liggéeyal Sénégal ñu liggéeyal ko ko yàlla na ñu yàlla dimbale ci Sénégal yàlla na ñu yàlla teel hmm? Hmm? ah euh, góorgóorlu bu baax ci dimbalante ci loo xam ne dafay dolli nit ñi loo xam ne dafay yëkkati nit ñi moo tax maa ngi bëgg ci taalibe bàyyi lu nekk ak seen biir borom xam-xam bu nekk ak seen biir borom xam-xamu xaa ñi xam xaalis ñi ngi fi ñi xam àddina bi ñi ngi fi ñi xam politique ñi ngi fi ñi xam marché bi ñi ngi fi ñi xam dërëm bi lu muy tekki ak lu muy jëriñ ak fu mu jëm ñi ngi fi ñooñu ñëpp ay xam-xam yoo xam ne maa ngi yaakaar ne benn bés danañ toog ñun ñëpp daje pour waxtaan naka la ñuy tabaxee suñ bopp tabax boo xam ne suñ xaalis ñoo koy amal suñ bopp te lu lu mën nekk la lu mën a am la ñu ngi ñaan euh, yéen borom xam-xam yooyu ma tudd yëpp incha allah ñoo am ay daje yoo xam ne dañuy seet naka la ñuy mën a tabax naka la ñuy mën a tabaxee suñ bopp ci ci ci côté finance parce que boo amul xaalis rek borom xaalis yi jënd la bu ñu la jënd bu ñu la jëndee rek def loolu la leen neex bon nag war nañoo def liggéey boo xam ne daf ñuy abal daf ñuy amal xaalis ba man abadan garantir suñ doom yi liggéey garantir suñ doom yi dootuñ génn dem ci géej gi loolu yëpp mën nañ koo am bu ñu ko bëggee mus naa wax benn proposition bu yàgg ne joxeel 1000 francs pour sauver sa doom sénégalais bu nekk bu joxee mille francs pour doomam yooyu dem ci géej gi ñu sauver ko 1000 francs yooyu lu bari lay doon ñu teg ko ci place boo xam ne ñooñu dinañ xam nuñ koy liggéeyee pour suñu xale yi liggéey duñ demati ci géej gi suñu xale yi liggéey mën a am teraanga ci seen biir réew mën a taxaw mën a dëgër loolu yëpp lu mën a am la waaye li ko mën a amal ci ñun ñii ñoo ko mën a amal yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën koo amal ñu mën a xam exactement naka la naka la ñuy àndee ñu bees ñii di tabax parce que ñu bees ñii ñëw dëgg dëgg nit ñu bëgg a tabax lañ ñun ñu bëgg a dolli lañu nit ñu bëgg a yëkkati lañ donc bon nag gannaaw noonu lañ mel duñ fi nekk di xulook ñoom ak xeex ak ñoom dañoo war a ànd ak ñoom dañ leen a war a dimbale dañ leen a war a jàppale ba ñu ñoom itamit ñu wone seen capacité ne mën nañoo xëccoo mën nañoo indi mën nañoo am mën nañoo amal mën nañoo dimbale seen peuple ñu am loolu laay loolu laay yaakaar loolu laa bëgg ne yàlla mën nañu cee dimbale su fekkee am nañ ay ay dogu te war nañoo am ay dogu ndax ay borom xam-xam rek ñooy jiite nit ñi bu leen borom xam-xam yi jiitee rek après lu nekk dafa yomb te am nañ borom borom xam-xam boo soxla rek su nekk nii am na ci biir taalibe Baay bon nag suñ borom xam-xam yooyu nañ leen jéem a jëriñoo ci tabax tabax tabax suñu bopp tabax suñu alal tabax suñu moomeel moom suñu yépp ah ba nga xam ne borom xaalis bi ñëw jënd ñu def loolu lu ko neex yal na yàlla fay leen yal na yàlla nangu suñu gàmmu ñun ñëpp yal na yàlla barkeel suñuy gàmmu ñun ñëpp liñ jóge fu nekk ñëw Médina ñëw fii Médina ñëpp ñëw li leen indi mi ci seen xol mooy dañoo bëgg dañoo dañoo war ñun lii lañ ñun yonent lañ farat yonent lañ bëgg yonent lañ àndat te dara mënuñoo génn ci loolu bu ñu yonentu ooyee dinañ ko uy bu ñu ooyee ci yonent dinañ uy loolu yëpp ngir óolu óolute googu nga am ba mu jaral la lu nekk nga ñëw pour fekkee fu ñuy màggale yonent óolute googu gën koo yaatal ne mën naa ko gën a yaatal ba mu àgg fu nekk ci àddina ba mu àgg ci tabax nit àgg ci yëkkati nit loolu yëpp lu ñu mën a am la ñu ngi ñaan yàlla bu baax yàlla na yàlla ubbi suñuy xol yàlla yàlla may ñu départ bu dëgër boo xam ne dañuy tabax suñu bopp ne mën nañoo bokk ñun ñëpp ci àddina bi mën nañoo taxaw ndax àddina bi alal rek moo ko amee te boo ko amul borom alal yi ñëw jënd la yóbbu la yal nañu yàlla musal ci loolu gàmmu gàngook ñëw na alhamdulilah dama waxoon ne du ma ñëw ci gàmmu gi damay toog rek déglu ci rajo bi comme ni ko ñëpp di dégloo déglu naa sëñ Màkki gàmmu gi passé dëgg dégg ku ne gàmm na ko ni mu ko war a gàmmoo defee na ko ni mu ko war a defee mat na rafet na baax na xam-xam na moo tax gannaaw samay rakk mën na mën nañ eh bien damay kulóomu rek tëdd jeex na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.